Mm-hmm. nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw duñ jig njaag ñoom ñooñu la mm-hmm. xale bu jigéen boobu noonu xam nga Aminata Badiane mm-hmm. moom kanamam googu boo xoolee sa nga xam ne kii boobu ala ala Amina daa ko ne ci ginnaawam d'accord am ah, donc ma Amina Aminata John c'est pas Amina John xanaa Fatima d'accord alors Fatima Diagne euh, mën nañ fàttali ko ni interview bi nga xamante ni mi ngi ko defoon donc exclusivité boo xoolee Dakar ne moo ko diffusé woon mhm. donc mën nañ wax sax ni suñu collègue la ah donc parce que jot na fi def ay quelques émissions fekk mhm. amoon nañ ay projets ñu bëggoon euh, continuer ak moom fii nga mhm. xamante ni mooy Dakar net donc ñun waa Dakar ne ñu ñu ngi ñu ngi ci ginnaawam donc duñu ko nëbb alors ñu ngi si daanaka catal waxtaan bi tey waxtaan bi sax dafa xaw a gaaw si man parce que mhm. on est trop passionné affaire daf ñu metti ñun ñëpp mhm. mais man li nga xamante loolu laay wax sax malheureusement fi ma toogee nii mënu ma waxee mhm. man moom ndaw lu ndaw Davida bi def point de presse bi ko xool man kii elle la mel quoi. li muy loolu laa gis en fait. au delà de saa au delà de ça bu mu ne bon fii ku ñu ëmbal yow la neexaa ah. ba mu neexamu ni eh, mais ku ñu ëmbal. Pape Faye ci boppam de nga porté plainte maa ngi dégg moo wax femme bi appuyé Pape Faye wax na li gën a dee mais mm-hmm. nag bi daf leen commencé di ëpp loxo xam na la mm-hmm. nañu bàyyi lépp ci suuf xanaa loolu mooy manque de respect affaire yi rek ku leen ku leen manque de mm-hmm. rek xamante ni duñu Papa Ndiaye dëgg la suñu problème mooy loolu ñun dañoo lan mooy autorité. daa daa daa alors jaar ma ne la amal autorité doon nañ autorité te amoo personnalité. dis mm-hmm. mm-hmm. tey daf daa mer nga ah tey daf daa. mais dama mais que autorité ñun loolu moo ñu sonal Sénégal fii loolu moo ñu sonal c'est-à-dire. mais ni dafa métti autorité la. Mm-hmm. diw mii diw mii fekk ni du papa. dëgg la diw moo dégg ñu naan diw la mu diwoo tax ñoom lan lañ diwoo. ci jaaxal lañu diwoo. jël xale yi nga xamante ni xamuñu dara. Mhm. nga dugal ci la doon wax sànq ci formatage mhm. tamit aussi tamit man en fait xam naa si si la ñuy tëjee waxtaan bi ah. Mhm. dinaa la ko laaj mais ba maa ñëw si question boobu ma ma relancer un peu Djiz Djiz mbir bi ni mu ni demee nii nii ni mu demee nii ampleur bi mu jël problème bi toll fii nii est-ce que jàppoon ni jigéen ñi si boppam seen passion bi ñu topp nii muy miis est-ce que gisoon dañu ko war a tegaat ci suuf wala ñu xolaat est-ce que gisoo na c'est jóg rek aventure wu nii si benn affaire parce que dama ko bëgg ñu bàyyi la ngay def ay 15 jours un mois ci ay nit yoo xam ne. ay ndaw. est-ce que gisoo ni tamit Miss yi. tu sais gis nga Miss ak mannequin. Mhm. Euh, milieu mannequinat bi. non mais liggéey mais liggéey liggéey la ñun suñu liggéey dafa mhm. noble. Mhm. dafa noble parce que si la ñuy teral ndey teral si baay teral si mbokk ba ennemi. donc métier bu noble la gis nga ñun. Euh, nekkul da nga bëgg nekk euh, dara rek mhm. donc dañ lay chantage nga nangu il faut mhm. savoir dire non mhm. quand il faut donc loolu laaj déjà ñun suñu mettier déjà metti na mais fulla la laaj xanaa tey man kenn ma fekk naa ma daf may chantage ndax ñaaw naa ñaaw boo xamante ne war am naa sama carrière mais mais mais non dañu war a xam ñun jigéen y a des prédateurs dans la société yoo xam ne ay saay-saay lañu nekk ñu fi du dul détourné ñu nekk manqué wala nekk mis bu ñu parfois doo défilé dox ba mu yàgg nga dugg ci police yi pour nit fekk la fa jox la benn benn benn këyit boo xamante numéro moo si nekk et cetera war carte visite am genre yooyu loolu du fan loolu daal mosul dal. non peut-être ñooñu ay fans lañu wala du genre. non mais tu sais non non. avance la. mais comme avance. gars yi ñu may ne ma 5000 moo ñu dese. waaw avance la ñu inscrire wala. waaw avance la ñu inscrire. Mhm. dëgg la ko mu kii maa ngi waxee nii. Mhm. doy na ma. Mhm. mais fulla ak fayda googu moo bariwul ci seen milieu bi. bari na ci ñoo xamante ne ci ni <laughs> faaw nga tëdd pour nekk number one am si na bi. kaay ma wax la ñun suñu milieu milieu bu noobu la ay filles yu responsable ay góor yu responsable fii nit di nga bon ci àll ñëw dugg ci biir ñu foog ne ah ñu ñëpp a yem non non man déjà agence bi ma formé ba may dem man a sama yaay ñoo ànd. Mhm. mu formé ma carrément musuma ne ween musuma ne dara mu jóge naa fa moom laa lay sànq moom moo ah, njëkk a li xew suñu réew. ñu génn mhm. ko saako taxe te lu mu doon wax tey feeñ na mm-hmm. ah lu mu doon wax tey feeñ na donc gis nga ni dèjà boo nekkee si dara da ngay am conseil mm-hmm. man dèjà man balaa ba may ñëw fii dama tàggoo ba bu may dem fen dama am ñoo xamante ne mm-hmm. dama leen tàggu si milieu bi nag suñu ma ne ñooy defal lii defal donc boo amul conseil donc du coup di nga tëmb si pax pax yaa a des prédateurs yoo xam jigéen bu rafet la ñu bëgg wala jigéen bu nekk si showbiz il faut savoir dire non quand il faut on est des femmes nekkuñu objet nekku da nga bëgg dara rek c'est force que dañ a utiliser